salaamaaleykum mbokk internetu xewal gi TV ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte ak contentement àndaat ak yéen seen émission découverte bi nu saxoon di def saa su nekk di ci dalal ndaanaan tey nañu dalal ndaanaan lu mag loo xam ne yaakaar naa kenn dootu ko présenté ci région Kaolack rawatina ci Sénégal gi nu nekk dañu koy bàyyi mu présenté wu di ngeen xam invité bi mooy kan. maaleykum salaam sama bureau bi maa ngi lu bëri di mbokk internet xewal gi TV. oui c'est Sonboy Pro aka Bandit Mike from Kell City oui di bëggee sama waa village Lomen Ousmane foofu laa dëkk foofu laa cosaanoo foofu mooy sama lépp ci commune Kër Maba Diakhou bi maa ngi bëggee ñëpp ah. waaw ba léegi ñu del si ginnaaw bi nga présenté Iba bëggoon na ñu ñëw ci waxtaan comme tey nu nu ñu ko baaxoo di def émission découverte émission boo xam ne la dañu fay découvrir ni ki xam mooy kan jéem a xam mooy kan mu expliquer ñu ci boppam parcours am ak jaar-jaaram ak yu bari tey yàlla def nga nekk sunu invité jógee fu sori macha allah ñu lay masaw ci coono bi ñu bëggoon ñëw bëggoon nañu xam Iba moom mooy kan réellement waaye Iba Sohone benn jeune rappeur la rapport boo xamante ni kenn dootu ko laam-laame ci commune Kër Maba Jaxaw bi surtout sax Kaolack lay wax sax kenn du ko laam-laame ci région Kaolack bi moom vraiment que maay béggee sama gars yi yëpp nag waaw rab bi moom macha allah ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ñu ngi def loo xamante ni gars yi ñu ngi ñu ngi béggee quoi ñu ngi béggee nice waaw. Mm-hmm. bëggoon nañu xam Iba kañ la dugg ci ci ci ci ci son bi ci ci rab bi muy def. Mm-hmm. kañ la débuté. ak tey ba fi mu yegg si fii. oui Iba Son euh, ba muy débuté nag euh, yàggul lool ci ci fin mille 2019 bi la la débuté yooyu ba ba tey jii ni mel. waaw euh, depuis boobu ba léegi mënoon nañu xam tey Iba lan moo ko poussé mu dugg ci rab. waaye lu ma gën a poussé ma dugg ci rab bi ndax dafa doon loo xamante ni lu doon nelaw ci man la à chaque fois dama ci doon toog samay copains samay bro yu baax xam nga di ci def ay freestyle yoo xamante ni aussi ma doon gis ay bro yoo xamante dañuy rap. may gis loo xamante ni ci man vraiment ma ne lii ñii lu ñuy def nii dàquñ ma ko quoi léegi loolu noonu moom a gën a poussé mais météo na na avant may tàmbalee ndax parent yi nanguñ toon ñu ne rab bi mooy loolu mais ba ma ci duggee léegi daal noonu la fa demee after ci laa commencé ma def première single affaire bi explosé xam nga ñëpp kiffé ma ne voilà ma ne ko bii bu baax bi la baax ma continuer jàpp foofu. ah ok noonu nga ci duggee gis ne bi nga duggee gars yi dàquñu la ko nga dugg ci gis ne yow mi li ngay def mën nga ko macha allah. tarkaal la euh, Iba parcours am ndax jot na jàng dugg école euh, am déet. oui Iba jot na jàng waaw man mais soriwuma ci quoi maa ngi bàyyi quatrième. quatrième waaw. actuellement Iba dafa concentré wu ci rab bi muy def wala am na leneen lu mu ko booleel. oui Iba mu mu ngi joob ci leneen waaw maa ngi joob waaw. ah yaa ngi joob maa joob pas ma concentré ci rab bi kese kese noonu ndax euh, concentré ci rab bi kese kese noonu loolu doxut. Mhm. ndax foog nga am loo xamante ni foog nga mën a jàpp quoi ndax rab patient la rek. Mhm. waaw. Mhm. Euh, mën nañu xam depuis bi nga duggee ci rab bi ba léegi ñaata single nga génnewaale. waaw ainsi maa ngi toll ci plus de quatorze titres ah. quatorze mhm. ci plus de quatorze titres ainsi. ainsi yooyu mën nga ci ñëw ak ñun ci euh, euh, noo yi. ooy tellement yi nuñ bëree. Mhm. mooy loolu noonu am na yoo xamante ni sax ñu ma tàmbali baay. ooy oh, mais maa ngi maa ngi joob naa jàmm gën. Mhm. moo nekkoon sama premier titre son bi génn cartonné aussi ak euh, mbëri amerlo. ak si maa fi daax mama tamit euh, def naa ko def naa ñaari son love ak yeneen ak yeneen ko ak don't run the fight son boobu su ma koy déglu daf may neex trop ak fans yi di koy ah, bëggee fans yi tamit quoi dugg léegi puisque euh, quatorze titres nga wax je pense que am na ci boo xam ne yow jàpp nga ne ci nga gën a sentir sa bopp tey boobu boo ñu doon mooy ban waaye bëree na sax yoo xamante ni dama koy déglu di sentir sama bopp trop mais am na ci boo xam ne moo gën a nekk au moom jàpp nga ne yow mii daal bii moom boo koy déglu yow sa bopp sax da ngay fan sa bopp. waaye comme Don't Run the Fight boobu tamit euh, daa dama amoon jàpp benn ak benn bureau ma ma teg ko mu nice. est-ce que mën ñëwal ci son boobu may ko ñi nga xam ne tey ñoo ngi liy seetaan. di la bëggee. oui mën naa ko maye jox ko gars yi nii ndax gars yi kife nañ son bi trop. nga freestyle ko ñu dégg. dama tëll ñëpp coow subhanallah bi coow kan moo koy fay lu ndox mënul ci feu de brousse benn mbindeef di tax ma bàyyi benn yoon danga ma woo ci guerre e laal nga laalake soo xamul nii la mujjee doo gaaw a dugg ci man bi dance denc dance booy bambara dawul coow seytaane moom may dundal te xaaruma xaaruma ku ne ma ayca ñu xeex ay ayca ayca yoon bi gudd na kon nañ ci dem te lu njax nay saw saw sa bopp dinaa la puub saw day sa kaw même soo amul sagu ci sa bopp son booy eki dina dal sa kaw yokku cere dolu ñeex dee booy dem bëggoon xaru fekk ma ngénte sama sama bopp ci dëj booy dem jàng zalo li ma leen raweeta mu leen ma dab mu leen net booy fii fa ngeen kalu laa bëgg a doon ci gémmi mel ne Bob Marley pra moo ngi kawe de yaa <laughs> loolu allah taxi bi boo ko dégloo da ngay xam ne

mais dégg naa ci biir bambara mais bambara bi bu dégg wolof. <laughs> waaw noonu la fa demee nag ngi naan bambara bi déggul wolof mais mu déggee wolof rek Sénégal toj. kon bu bambara bi déggee wolof <laughs> maa ngi fàttali mbokk internet xewal gi TV yéen a ngi ànd ak ñun seen émission découverte bi nu saxoo di ko def saa su nekk tey nag ñu invité ci invité ndaanaan boo xam ne kenn dootu ko natable. li muy def mën na ko macha allah tarkalla mooy Iba Son di doomu Saloum je pense que xam na nu ko wala ku ko xamul miin nga ko ci ci ci vidéo vidéo yi muy def mu ngi tourné bu yàggu rek génnee la benn clip boo xam ne moo ngi cartonné actuellement euh, tey moom lañ am comme invité da ngeen d'après lim ñu fi jàttoo wax ci parcours am dañuy continuer rek ba léegi Iba Iba lan mooy projet waaye Iba actuellement sama projet mooy que ni maa ngi ci maa ci projet sax laay wax hmm. mooy projet mixtape wala EP mais nag euh, mixtape daal laa xam ne moo nekk mom lay préparé quoi. Hmm. waaw mixtape. concert yi bi nga commencé rab légui dugg ci. Hmm. est-ce que mas nga def concert wala nga génn fi réew mi Sénégal génn lu même lu mel Gambie wala sous région bi wala affaire yooyu. non musuma génn Sénégal nak, mais ñu ngi won ci ci ci projet yooyu mais à cause de corona bi. Hmm. motax tax euh, yooyu yëpp annuler. annulé mais comme ci biir Sénégal fi yàgg naa présenté wu ci concert yi bari. concert ah, yow dañ la invité wala yow yaa ko yaa dëggal sa bopp eh, am na yoo xamante ni que dañ rek am na ci ñoo xam ne hmm. def seen ben affaire créé ko waaw ah, man dañuy bootu ci ginnaaw gaay rek non loolu am na te bari na tamit hmm. mais xam nga tamit euh, so gisee ñu bëri di def day fekk comme nga gis rapport bu mag boo xamante ni xam nga moo la gën a yo ëpp benn niveau bi mu def concert da ngay bëgg a assister hmm. pour mën a gars la xam quoi mais vraiment ñu tasaare naa fa quoi. toj nga fa tasaare naa fa soo fa jaaree soo ne Iba Soone gars yi moom rek la ñuy bégee. moom la ñuy dégg quoi. <laughs> waaw <laughs> ñoo ko dégg doo ko dégg ngeen Iba nee moom mooy rajaxe quoi. mooy tasaare côté yooyu dafa mel dafa bëri commune Kër Maba dafa bëri ay rapport. wow dafa bëri rapport comme ay njéeréer baay. mooy déglu naa ko ci benn invi euh, invité boo xam ne invité woon nañ ko fii ci xew gi TV. oui na Kër Maba. rab mu ngi dëkk foofu commune boobu léegi la tuxu ko waaw rab fa la la dëkk ndax euh, loolu laa mën a wax quoi. Mm. mais nag euh, lu tax na ñu ne rab nag euh, des na fa tuuti ndax rapport yi man bëgg naa comme sama sama mbokk rapport yi laay wax waxal ñu fa dëkk ñuy joob si yoo xamante ni dafa riche. Mm. ndax soo xoolee pour rapport bi bind bind boo xamante ni dafa kawee ba soo ko dégloo yow mi da xam ne tigig booy bi vraiment kii MC la. des na fa quoi bëri na rapport nag. mais comme bind bi dafa des. mais ñàkkul ko bind bi am na rapport yoo xam ne yow man nga wax ne ñii. Hmm. seen bind riis na foofu. mooy <laughs> grand rapport yi comme njéeréer laa la wax mais comme ku mën a bind bind bu kawe boo xamante ni comme Son booy dafa tuuti foofu. dafa tuuti foofu ah, dafa tuuti foofu yow daal commune Kër Maba Son Boy moo nekk au top. commune Kër Maba Jaxu Son Boy mooy king bi xëccoo ma ko nag mais maa ngi toog ci trône bi. bàyyi gaa yi ñuy wax quoi. gaa yi la ko jox wala yaa ko jox sa bopp. non gaa yi ñoo ma ko jox. <laughs> gaa yi ñoo la ko jox gaa yi ñoo ma ko jox bu yàgg bi yëpp am nañ ci part de responsabilité man am nañ liñ ci wax puisque yaa ko wax. du man maa ko wax. <laughs> nee na moom mooy king bi foofu. ñeneen ñi xam naa dinañ ci intervenir. waaw ñu ñu ñëw ba léegi. Mm-hmm. Euh, gis nañ temps yee yàggul dara. Mm-hmm. tourné nga benn clip. waaw je pense que. clip boobu man nga ci ñëw ñun ci ak ban son nga def clip noonu. ooy clip bi. son bi son bi ego trip la aussi tamit euh, am na ay clash ci biir mhm. waaw clip bi nag euh, dama toog ma xool que ni vraiment man ñu région Kaolack lañ dëkk pourquoi pas ma def benn titre ne from Kell City wan MC yoo xamante ni ñoo nekk ci région Kaolack gi ne que ni man defuma ko pour am from Kër Maba Jaxu mais dama ko def pour Kell City wan MC yu nekk biir Kaolack mhm. que ni lu ñuy def daaxuñ ma ko fekkee rab bi la bindu kawe bi mën naa ko ku déglu cli ku déglu son bi di nga xam ne tigi booy bi mooy loolu moo ñu bind quoi waaw moo tax ma def ko aussi tamit wan yenn grand yoo xamante ni mooy loolu dañoo yenn loo xamante ni ñëpp a moom te yenn lu ñëpp moom saa day diis sa kaw nañ wàccee ku nekk jël loo xamante ni moom nga moom quoi nga dem sa yoon mhm. waaw ok ñoo ko déggandoo je pense que loolu am na solo comme li nga wax ndax puisque la fa jot saalum saalum yi ñoom it dañoo war di wane seen bopp sa su nekk vraiment je pense que bu ñi wax talent mu ngi saalum way mu ngi saalum mu ngi saalum engagement bi ak ni ñi ko war a jàppee euh, loolu moo des moo des mais di gis jeunes yoo xam ne am nañu talent bari na fi lool lool hmm. kon je pense que il faut que yéen ñi nga xam ne ay porteurs de voix ngeen ngeen di montrer que Saloum y a quelque chose y a quelque vraiment dafa leer sax man euh, comme région Kaolack bi laay wax ñun ñun ñu neen laa ñun ñoo gën a eh, kii dese gëm suñuy doom quoi ndax da gis benn artiste boo xamante ni région Kaolack bi fii la dëkk da nga koy xool. nekk ci kaw mais tey keneen bu toogoon fii nga toog itam day wax ne moom moo nekk ci kaw. mais loolu loolu dafa leer mais bëri na rapport yi jaar fii quand même yoo xamante ni commune Kër Maba Diakhou lañ jiyee ko. mais yow soo dégloo ñoom lu ñuy teg ak son booy. ça fait mais am naa ci invité yoo xam ne fii Kër Maba foofu lu dëkk mais dañuy toj. Euh, dañuy dañuy toj boo déggee ñoom da ngay xam ne ñii dañuy bind. non bind bi des na. ah bon oui. bind ku mën a bind comme son boy. ça dafa tuuti ci gars yi foofu ñi fa nekk ñëpp yenn rappeurs yu bari may bañ a nii di tuddu hmm. ñu ci mel nii waaw. nga da nga koy gis nga xam ne tigi vraiment booy bi am na talent quoi mais pour nga jël sa xaalis financé ko ci pour jàppale ko mu dem loolu day def benn problème ci yow quoi dañuy jël da xool sax waaw vraiment da nga gis son booy mi vraiment mën na lu muy def. kii suñ ko jëlee mën nañoo ànd ak moom liggéey mais duñ ko def dañuy jël koo xamante ni bokkul ci région bi wala ñu jël ko dakaar indi ko fii di financer ci moom xaalis bu bari mais soo ko defee suñu doom yi fii dañuy dem. Mm-hmm. loolu rek moo des si ci ci suñ côté quoi ndimbal bi gars yi ñu war a fexe jàppale ñu donte amuñ doole sax mais ñoom ñooy suñ doole ñoo ñu mën a jàppale. Mm-hmm. waaw man loolu gis naa ko tamit pour gars yi gëstuñu quoi. ok merci beaucoup Son je pense que waxtaan wi am na solo. fi nga dugg ak li nga leeral. bëgg ñu ñëwaat aussi bëgg nañu xam staff bi. Mm. ñan ñoo nekk sa ginnaaw ak sa staff nan la demee. oui staff bi ñu nekk ci ginnaaw bari nañ trop macha allah waaw ñii ñii ñoo jot na ñëw samay grand yu ma ànd ak mais am na ñu bàyyi ci ginnaaw xam nga problème eh, ki transport bi moo moo moo moo ñu kii woon moo tax ñu. def benn ñaari moto pour mën a teew si fii nii. Mm-hmm. waaw mais ñu nekk si staff bi vraiment ñu ngi taxaw ci combat bi te aussi tamit ñu ngi ñu ngi ñu ngi ciy jàpp quoi ñu ngi jàpp bu baax. Mm-hmm. waaw li ma leen di wax nañ gën a jàpp xam nga ñu gën a fayet mooy loolu job bi day gën a jëm kanam incha allah avec son boy. Mm-hmm. bi ni kawe léegi tey ñoom staff bi tey son yi ngee yi ngay génnee wala kili bi ñoom ñoo koy financé wala am na yeneen partenaires yoo xam ne loolu lay jàppale ci côté boobu.

événement événement moom ma fi indi dama amoon programme Kaolack afta ci laa jaar fi mën a xaaral balaa may dem naa fexe xaar émission bi su jeexee ma hmm. delluwaat town hmm. waaw mais mais ñàkkul am na ay grand yoo xam ne am ngeen ak am nga ak ñoom ay link yoo xam ne mooy loolu waaw am na yoo xamante ni am na ak ñoom link dañuy déggante lu bari waaw comme sama grand kii Real MC même Babs Wane bu fi jiyee ko keroog sax maa ngi koy béggee moom tamit euh, sama booy bu cool la ak euh, benn groupe bu fa nekk ñu naan ko Hot Boys Crew waaw booy yooyu samay booy lañ ak euh, sama dëkk ci boppam am na ay MC yu fa nekk. waaw bii moo tamit sama bureau bu baax la. Ah. maa ngi koy béggee tamit. ak ma gis gi ngay cité tuddoo ko pour rek. <laughs> sama bureau la kooku sama. sama bureau la sama bureau la. sama bro la aussi tamit maa ngi bëggee BP tamit euh, from Lumen. booy yi maa ngi leen di bëggee booy yu am talent nag. Ah, ok ak booy ñooro yi rappeurs yi nga xam ne ñu ngi biir ñooro. oui rappeurs yi yi nekk biir ñooro nag euh, man aw ma ak ñoom benn relation bi nii mais secteur bi 221 bi. waaw boobu moom dama leen di suivre lu na lu bari quoi. dama leen maa ngi leen di bëggee ñoom iso ak tipo yaa di ay booyu am talent macha allah di job lu ban studio ban label nga nekk yow nañ ne mm-hmm. Saalum mm-hmm. am na ay kiifi mais yow est-ce que réellement li ngay wax ne purement Saalum Saalum mm-hmm. ak li nga bëgg wone ak est-ce que yaa ngi ci label li nga xam ne tey fii la nekk ci Saalum fii non actuellement Saalum ci biir Saalum fii nii benn label boo xamante ni maa ngi fay dem di fay joobe sama projet muy Kaolack euh, ñu naan ko GT5 mooy studio Aka bi. mais nag euh, sama yeneen projet yëpp dakaar laa ko joobee Bosi for musique ak def musique mhm. bu wan lyrical. pourquoi le choix Dakar. non xam nga foofu laa nekk pour déplacement bi di ñëw Kaolack day jël benn temps bi nii. Mhm. moo tax euh, damay toog foofu noonu rek joob li ma joob continuer sama liggéey. continuer c'est

tey moom la ñu am comme invité waxtaan wi am na solo dégg ngeen ko lu bari leer na xam naa dañu koy bàyyi mu defalaat ñu baneen xam nga mayaat gars yi laneen loo xam ne dinañ ko dinañ ko déglu tuuti seen xool di neex ndax fans yi ñu ngi lay seetaan xam naa à travers Xeweul gi TV bëgg nañ nga ñëwaat ak ñoom ci leneen. waaw fekkente ni fristal la mën naa leen a jox benn bu gàtt ni waaye. Mhm. njëkk a fecc taxul moom géew te mu jëfa du tama xadd jobbi ku fi samp ndënd maaki tëgg di doon guerre wootal jàmm dégg sama suuri keneen ku woote ay dégg sama allo rang mi dal sa kaw fi maa ko dogate a tey foog jobbi fay ey taatu buy du ko gësam ñu ma yëngu mu ne ma yëngal ni weeni góor xale mi mag ñi may dóor bóor sóor ma tëkkum ba ma mën a door dóor na ay négis ci bit génne ay son yi dikk yoon la ma dàq fi rab tegaguma tànk gis ñëpp kaatap yi niw yées niw son niw gën leen ëpp fit gën la undu gën a clean maa leen dax rab ci game bi maay seen pap bu doyul ma dolli lii maa ko sañ moo tax ma ko def keneen ko bañ ma toog sa xef ey lii de maa ko sañ maa ko sañ keneen ko ko sañ a bañ kaam de sama digg loxo toog ci turam bi te xëccoo ma king lii comme guerre booy nañ gàddu piki maa ngi peel boo dama xew from lu mel du ma mës a beew reewaan du jaay te foo dem fekk ma saf ci làmmiñ ba mel ni ceebu jën xoolal ma càkkat ci jën dama bari talent ba amatuma njëg damay carte pour dix ngeen di carte pour ans bokki façon bi kon jógal nga danse yëngal sa mbagg sa baaxu moom ba sa la tànk laaj ma fu muy mm-hmm. la parce que vraiment ku ne jaar na fi mais nag bii moom tarkal la ñu koy faral di waxee tarkal la waaw tarkal moom tegu na ci temps son bi génn na wala génnagul. ko lu bees la de. non ko saal yi. dañoo toog ko nii nii. non joobaguñ ko. maanaam toog nii rek. <laughs> mënul ko. non loolu mënul ne. ko. d'après lii ni mu amee harmonie ak paroles yi ni mu tegee nii. waaye nga ne ko. non ko dañ koy mu gën a kawe quoi joobee nan la war a def. wuu day day cartonné. day cartonné day cartonné. yëngal di wax Sénégal nañu ko bàyyi xel. ku am talan la xale la koo xam ne macha allah tarkal la. Saalum talent moo ngi fii. Saalum talent moo ngi fi rawatina ci fii ñu nekk di département Nioro bii. Hmm. yaakaar naa xale yu am talent ñoo fi nekk nañu leen di bàyyi xel di leen jàppale. ni ku nekk da nga war a gëm sa produit je pense que produit bi ñu am. Hmm. ku nekk bëgg na ko. mais fi da ngay am gaynde diko wax mous ba mu far nek ben mous te dañ ko war di di ci côté financièrement ci domaine yu bari ci je pense que dem lan euh, sa message bi nga à travers les autorités ak comme wàllu côté autorité avons da dama len di wax nañ dom ñi nous avons lañ waaw grand frère aussi tamit ñun mën nañoo présenté wu comme artiste ndax ñun ñooy ñun ñooy seen voix. Mhm. waaw bëgg nañ tamit euh, ngeen jàpp lañu topp waaw liggéey bi moom c'est pas facile. Mhm. yombul ndax yéen ci mën a jàpp dugal seen loxo xam nga pour job bi mën a gën a jëm kanam daal loolu laay ñaax ñëpp nañ jàpp ci combat xam nga rab bi yombul. te aussi tamit balaa ngay xam ne yombul sax ngay financer sa bopp. Mhm. ci ngay door a xam ne tigi man ci job bi ma nekk nii. mooy loolu métti na trop waaw bëgg naa ngeen def si seen loxo jàppale seen i doom seen i rakk xam pour job bi mën a jëm kanam loolu laay wax ñëpp quoi. waaw surtout sama waa commune nag euh, monsieur Sara Diallo kooku sama professeur la monsieur Abdou Ndiaye waaw ñëpp a ko xam. Mhm. ak euh, monsieur le maire aussi tamit maa ngi béggee ñëpp nañ jàpp ci combat pour que ni artistes yi mën a gis seen bopp ci ci li ñuy liggéey quoi. loolu lay wax ñëpp. Euh, xam naa léegi tey temps bi euh, jeex ndar képp. balaa mu jeex rek dañuy ñëw tey lan lañ war a mën a xaar ci Iba ci projet waaye Iba moom li ñu war a xaar ci moom bari na mixtape bi maa ngi ko doon wax ci ci ci début bi nañ xaar ci moom incha allah dañu job mixtape bu dóob bu kawee sax. boo hmm. xamante ni su génnee Sénégal ñëpp a yéeg seen bopp ci ci ci mixtape bi quoi incha allah. département ñoro lu ñu war a xaar ci yow ci lo xam di nga ko bëggal soppé puisque hmm. tay fans yaa ngi fi ñoo ngi lay bëggé tay day baax nga am lo xam di nga leen ko bëggalé waaye fans yi mom ñoom yaa ngi xé dakar mais fi da nga ko toj si fans yi nañ to xaar rek projet bi inshallah suñ ko jowé su danañ projet danañ bëri département ñoro bi danañ ko yëngal ba mu yëngu ñoo ngi leen di fàttali moom nañu amoon comme invité macha allah tarkal la dégg ngeen waxtaan wi am na solo euh, li mu fi leeral tamit dégg nañu ko nañu ko bàyyi xel message bi mu fi lancé pour les autorités nañu leen jàppale bàyyi leen xel dimbali leen ndax finance sa bopp dafa métti te ay ndaw lañ yoo xam ne dañuy doog a door euh, yu bari amaguñu ko day baax ñu man leen jàppale dimbali leen ba nga xam ne seen yenn single yi wala yenn vidéo yi ñu tourné dinañ ko mën di def normalement du am benn problème message boobu lancé na ko man dama koy lancé waat gars yi di wax nañu bàyyi xel rappeurs yi nga xam ne ak ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci art rek nekk fii ci région Kaolack rawatina ci département Nioro ñu leen di bàyyi xel ci saa su nekk di leen dimbale di leen nemmeeku di xam ci lu ñu nekk di leen promouvoir puisque Xeweul gi TV est la pour lan pour pro def may promotion ñi nga xam ne tey ji ay jeunes talent lañ nekk fii ci département bi ñun loolu mooy suñu objectif du Nioro rek du Kër ba rek du commune Daaru rek mais 15 communes yi nekk fii ci département Nioro bu ñu ko génnee sax Sénégal la ñuy wax képp koo xam ne gis nañ ne war nañ ko mën a génnee am na talent war nañ ko mën a feeñal dinañ fexe boo contacter ak ñun dinañ fexe nu ñuy def pour génnee ko Xeweul gi bi mooy loolu di leen faax ne nañ leen di abonné di ko partagé parce que Xeweul gi TV nit ñee ko fi tax a jóg sunu xéewal la pour ñun ñëpp kon nañu ciy jàpp ba je pense que loolu la dernier mot. dernier mot mooy damay dellu rek euh, béggee béggee la béggee tamit euh, sama caméraman mm-hmm. ak soxna si di béggee sama gars yi mu ànd ak euh, ak ñi mu bàyyi village ak fan si yëpp nag mm-hmm. maa ngi béggee ñëpp ak sama bro yi nekk Dakar mm-hmm. waaw maa ngi béggee ñëpp ak sama grand frère Gilles maa ngi koy béggee lu bëri waaw maa ngi béggee sama waa gaale nag Dakar waa gaale Père Demba Tangara maa ngi koy maa ngi béggee ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi ci biir gaale bi maa ngi lay béggee ak euh, waa Kaolack tamit euh, maa ngi leen di bëggee sama waa koñ waa Betuwaar maa ngi ñëpp waa gan bi mm-hmm. mooy loolu bàyyi ma kenn. Mm-hmm. ne na ñëpp too xaar rek incha allah Son Boy Pro ci projet. Mm-hmm. waaw projet boo xamante ni day tasaare incha allah. nañ ci joob lu bëri. waaw wax ci xewal gi xewal gi TV tamit euh, maa leen di bëggee di am mbégte ak contentement bu bari tamit ci yéen macha allah job bi na trop dañuy ñaan yàlla rek yàlla gën a yokk level bi mu doon. télé boo xamante ni. Mhm. xam nga àdduna gi yëpp fépp lay feeñ tamit. Mhm. waaw loolu daal bëgg naa ko te aussi tamit maa ngi koy ñaan yàlla. Mhm. waaw yàlla defal leen xewal bu bari quoi incha allah. merci beaucoup jaa ngeen jëf gaa yi li lañ leen andiloon seen émission découverte tey jii ndaanaan li la ñu amoon comme invité tey dégg ngeen fi ko am talent la macha allah tarkal la comme ni ñu ko waxee woon rek euh, moom la ñu invité woon tey ñu àndoon ceeg. Euh, waaye am na am lu ma fàtte nag euh, maa ngi béggee sama waa village surtout lu mel Ousmane. maa ngi leen di béggee lu bëri waaw di béggee sama borom dëkk imam bi jeunesse yëpp waaw di bëggee ñëpp nag macha allah seen job nice na trop dama leen di wax rek nañ gën a nu gën a nuñ jàppante ñu gën a jàppante gën a raxas xol yi xam nga def def xol yi benn quoi macha allah dëkk bi jëm kanam loolu laay am lu mën di wax du ci bambara du ci wolof man maa ngi nii man bambara laa mais soo ma gisee su ma la waxee que ni bambara laa sax doo ko gëm mais maa ngi maa ngi rafetlu daal. ànd bi trop macha allah ngeen gën a jàppante boole xol yi. Mhm. maa ngi béggee sama caméraman Cheikh Ba di euh, béggee ajaratu euh, Khady si sa di xaa sama xarit moom itam. animatrice bu mag gi macha allah tarkal la maa ngi koy bëggee euh, di amoon mbégte ak contentement teewaat ci émission bi nga xam ne mooy découverte naan na moon ngeen ma mais maa leen raw te jii ñu dalaloon daanaan loo xam ne mooy Iba di rapport boo xam ne ku am talent la macha allah tey gis ngeen waxtaan wi am na solo nanu ko bàyyi xel nanu leen jàppale euh, ndax li ñuy def mën nañu ko tey moom la ñu amoon comme invité ñoo ngi leen di jëfal ñu leen jox di dajee incha allah baneen yoon ci baneen invité incha allah jaageen jëf te bu leen fàttee abonné ci Xeweul gi TV sunu TV ngeen jëf